internationale. C'est l'info internationale. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa xibaar yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew. Seneinfo. ci seneinfo.net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene defal la tënku xibaar tey mercredi 17 décembre comme niñ ko doon xaaree nag confrontation diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr am na démb fële ca tribunal ci bureau bu doyen des euh, juges bu ñu sukkandikoo nag euh, ci ki nga xam ne moom mooy euh, maître Bamba Cissé di avocat bu Ousmane Sonko mu ne daal confrontation boobu bu doon ab combat la ña fareek Adji Sarr kon ñàkk nañu boobule combat moom sax nee na dañu doon xaar ci ndaw sii di Adji mu indi ay preuve wante nag mu ne daf ne ngam daal nanguwul wax mu ne daal moom dafa noppi di sax noppi boobu daf leen sax eh, jaaxal ñoom ñooñu leen di avocat yu Ousmane Sonko ce geneen wet ga nag eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy avocat yu aji Sarr eh, ñoom nag nee nañ sax jàppuñ ne ab confrontation am na ndax ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko dafa bañoon dafa lank ne kon du tontu li nga xam ne moom mooy question yu procureur yi wante itam question yi nga xam ne ñoom ñooy yooyu nga xam ne kon ñoom ñooñu ay avocat yu aji Sarr posé nañ ko ko. premier ministre Amadou Ba dina amal déclaration de politique générale am lundi 12 décembre ab communiqué bu bàyyee ko assemblée nationale moo ko xamle moom moomu Amadou Ba nag euh, ñu tabb ko premier ministre le samedi 17 décembre. bi ñu weesu euh, gannaaw bi nga xam ne sax boobule poste dañ ko supprimé woon ci deux mille dix neuf bi njiitu réew mi Macky Sall faluwaatee ci bopp réew mi balaa nag ñu koy indiwaat euh, boobule poste premier ministre ci ab projet de loi boo xam ne euh, foofu la ci assemblée nationale kon lañ ko wootee woon. mbirum cumul des mandats ci biir pas ci biir parti parce Pastef euh, coow la nag boo moywul dina jeex ndax ki nga xam ne moom mooy euh, biram Souleye Diop di euh, président bu groupe parlementaire Yewwi Askan Wi foofu ci assemblée nationale nekkit maire bu Thiès Nord moom nag xamle na ne dina bàyyi benn ci ñaari postam yooyu fii ak mois de janvier démb nag la ko xamle kon foofale ca assemblée nationale. dañ koy jeexal xibaaru sport démb nag gaynde Sénégal tertu nañ leen gannaaw bi nga xamee ne nag lajj nañ ci coupe du monde bu gën ba ñibbisi fii ci Sénégal démb ñu tertu leen tertu bu am solo gunge leen kon ba sax palais de la république nga xam ne njiit réew mi Macky Sall moom it tertu ne tertu fa jaajëfal leen wax leen sax ne kon prime ya nga xam ne dañ ko dañ leen ko namoon a jox kon buñ qualifié lii di quart de finale ca bàyyi dara kon yooyu le prime nañ leen ko jox équipe bu Maroc nag ñoom dañoo def jaloore démb gannaaw bi nga xamee ne nag eh, ñoom ñoo door éliminé ki nga xam ne moom mooy Espagne gannaaw bi ñu defee 0-0 ci match bi dem tiro bi Maroc dugal ñetti bal kon tax ba ñoom Maroc qualifié quart de finale loolu nag nekk jaloore bu am solo gannaaw Cameroun 1990 Sénégal 2002. Ghana ci 2010 Maroc moo nekkaat ñeenteelu kon dëkku Afrique bu qualifié ci quart de finale. bu coupe du monde euh, deux mille bu coupe du monde kon de football yeneen équipe yi nga xam ne qualifié nañ ci quart final nag euh, ñoom ñooy Pays-Bas Argentine Brésil Croatie Angleterre France ak Portugal loolu ñu tey ci di xibaar yi leen jaajëfal jox la ci